gërëm ñëpp ci waxtaan wu am solo wi ñu seq ak kuréel gii di kuréelu promoteur nga xamante ne ñoom seen spécificité mooy du bureau waaye dañu am porte parole ak coordonnateur Bamba Faye di coordonnateur bi sëñ Abdou Lahat di porte parole mu doon waxtaan nemmeekuwante parce que en réalité suñu waxtaan yépp dafa tourner ci visite de courtoisie waxtaan xool lan mooy jëmale làmb ji kanam mais aussi ñoom itamit ñu fekk ci état bi ci décision bi mu jël mooy làmb yi ci arène nationale bi lay indi amee amatul dellu Ibamar loolu it lu am solo ma leen ci sant di leen ci gërëm parce patriotisme moom mooy tax su sa réew waxee dara nga càmbar ko ba xam ne la lu baax la nga ànd ca ak moom te xam ne luy defar làmb la waxtaan nañu waxtaan wu am solo waxtaanu teranga te dara feeñul ci waxtaan wi fii lu jëm ci concurrence entre kuréel gi ak beneen kuréel ku ne lu defar làmb moo la tax a jóg moo tax ci biir waxtaan wi ñu mel ni bàyyi Ndiaye ñu mel ni ñëpp ñoom ñi nga xamante ni ku promoteur yëpp benn lañ benn objectif lañu am benn mbir la ñuy def waxtaan nañu ci suñu biir te namm nañ cee doxi jéego jéego yoo xamante ne day rafetal diggante d'abord mais jéego yoo xamante ne day tax promoteur yëpp. nekk benn lépp am doole su ko defee état bi gën leen mën a jàppale parce que tey combat promoteur bu mu mënti doon wala ku bokk ci làmb ji mooy nan la ñuy def ba sponsor yi dellu keneen kuy def leneen da ngay def waaye ci coono la mujj waaye nan la ñuy defee boo wane wane image boo xamante ne kuy promoteur di nga sawar a dugaat ci làmb ji jàppale promoteur yi loolu moom mooy reflexion bi ñu war li ci des nag problème bu rëy amu fi. am na ay quelques jafe-jafe yoo xamante ne amul solo yoo xam nañ ko war a étudier par rapport au nombre de GMI par rapport au nombre de policier ci kii am na combat yu ndaw yoo xamante jàpp nañ ne téeméer dafay xaw a ëpp parce que nag booy bu booy booy dajale yaawu jaal ak bodi RFM bokkul ak booy boole Papa Sow ak Siteu bokkul éléments yi donc c'est un problème qui est posé qui va être pris charge après réflexion avec les services concernés pour trouver une solution avec l'ensemble des promoteurs waxtaan yi nag dinañ di daje di ngeen gis yeneen daje yoo xamante ne ñun dinañ ko sàkku ci promoteurs yëpp pour dox jàmm wax jàmm ba ñëpp nekk benn parce que li ma gis fii ak la ma gis ci yeneen promoteurs yi mooy ñoom ñëpp jàpp nañ ne ñoo bokk ndey ak gis-gis nag des fois du ñu bokk lecture ci une situation waaye loolu day renforcer diggante waaye du tas définitivement diggante kon loolu ñu ngi ci am mbégte ci dajeek ay nit ñu responsable ay nit ñoo xamante ne dugguñu ci ay détails nekkuñu ci concurrence aveugle ñu ci lulul fexe làmb yi ñu di ko tëgg nañ ko war a tëggee te mu jur li nga xamante ne moom moo tax ñu tëgg làmb yi kon sant naa leen gërëm naa leen ci seen ñëw fii ci ministère de sport xam ne seen kër la képp kuy sportif wala nga bëgg a sport xam nga ni kër gi sa kër la kon nañu joxante loxo rek te téye bu baax nag arène nationale bi sécuriser ko ba investissement bi mun a yàgg investissement bi mun a rentable loolu lañuy ñuy demandé yéen ñiy organiser parce que kii organiser moom la ñuy jox infrastructure bi kon nañ ci def fulla ak fayda jàppe ko ne ñoo ko moom su ko defee dinañ ko yaxanal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant journal sportif yi nga xam ci làmb ji lañ ne ci seen taxawaay aussi parce que fu làmb jëm def ngeen ci jéego yu bare bare kon ñu ngi leen di sant yéen tamit ci seen taxawaay jërëjëf. maa ngi lay ziar. dolli ziar baax Babacar. tey lan moo nekkoon objectif fu ngeen xëy daje ak ministre des sports monsieur Matar Ba. d' abord di sénégalais doon citoyen comme tout le monde doon ay promoteur am cër ci réew mi promoteur nag boo ko déggee carte ba moo seer ndax 300000 lay jar mais jëmmi aadama moom nit ki yaay defar sa image donc nu ñëwoon fi nag moo invité nu. pour ñu ñëw fii war a waxtaan ak moom bi ñu fi ñëwee li ñu andi woon mooy jàmm ak salaam duñu adversaire wu kenn tànnaa suñu kenn utuñu bir wi teguñu ko benn fit nga dégg nga wax na ko ci réaction bi li ñu indi rek mooy lu yokk lam kenn ku ci ne ci ngay dox yow mi moo la fi indi moo fi indi kële bi ñu ñëwee lañ doon xalaat ci bunt yi ubbi na ko ba mu gën a yaat wax ak ñun ci dal wax ak ñun ci taalibe wax ak ñun ci discipline te looloo ko war ñu dama fi nekk pour tout le monde jëluma pouvoir bi rek pour ñëw imposer ne lu ma neex laay def te mën na koo def waaye du ma ko tëj dama waxtaan ak ñoom diisoo ba ñu am li ñu bëgg kooku nag bu dee moom moom lañ fekk si woon tey mais pour rek lu yokk làmb moo ñu taxoon a ñëw maanaam suñ suñ suñ waxee lu yokk làmb mu mel ni ci biir wax ji dama dégg lu mel ni mu fexe jàmm am maanaam dox jàmm ci seen diggante est-ce que dafa wax ak yéen ci lu jëm ci beneen kuréel bi pour ngeen ànd bokk ndey bokk baay wala non c'est-à-dire que moom ñu wax ci beneen kuréel kuréel la ak kuréel boo séenee ñaari kuréel loolu yàgg na fi di nga jéem bëgg pour ñëpp ñoom nekk benn ay amu fi nit nag du ñëpp mën a ànd

ñun jël nañ yoon da pare di dem xaaruñu kenn donc nag bu dee dafa bëgg rek pour mu am amitié pour mu rafet loolu dara néewu ci bu leen woon tey woo ñu tam kenn du ko ne doo teg kii teg ñu duñ ñëw fu mu ñu woo dañ ko fay wuyu amuñu problème ak kenn ah problème ak kenn amul ñàkk bañ a ànd rek a fi am mais du adversaire wala non non yow mii sax fa nga dëkk wala keneen fa mu dëkk am na ku ma àndalul di loolu du ci dara taxul nga nekk adversaire u kenn ah loolu non du leneen amul leneen nga baal ñu parce que dafay fen ñu dégg ko mel ne adversaire duñu adversaire u kenn ñun ñëpp kilifa la ñu mag jëmm lañu ñu nekk fii kenn recruté wu leen kenn ku ci ne yaa xool fa la nga sentir nga dem ca ku ne seen ngaa seet ka nga mën a àndal nga ànd ak moom xëy nag moom bu sañoon ñëpp nekkoon benn munu nekk tey ji fi mu ne nii ñun fi ñu toll fa lañ mataar ba deux ñu ko digal ñu ngi door wax dama doon dégg ñu naan dafa seer dafa nangam est ce que loolu yéen ci waxtaan ngeen ci ak moom ñun ki régulariser sa combat nee naa la le 9 euh, février 16 février le 9 février suñu bàyyi xaadim sàmm mooy ñëw le 16 février Dieye production mooy ñëw diggante caatu Yoff ak xale bi nga xam ne mooy bébé Julde le 23 février le 23 février Ahmed Diop ay ñëw mi ngi nii taxaw le 1er mars Gibson mooy ñëw le 15 mars Baba jaw mooy ñëw ak soq ak Gamou Gueye le 12 avril Dieye production mooy ñëwaat. ma ngay ñëw euh, foofu ci arène nationale yooyu combat ma lay yëpp signé nañ ko pour CNG ba pare dooru ñëw ko rencontré kon kooku koy xaarul Matar Ba pour mu pousser la pour nga dem ñun pare nañu li ñu waroon mooy ñëw xool nan la def rek pour lu yokk làmb képp moo ñu fi andi. Serigne Ndiaye Sococim fu ci jëyee production toll. desul ci Sococim desul ci jëy production ci Serigne Ndiaye la des. la des wan nañ ko ginnaaw ba ko nag ñun pare nañ ci ku bëgg mën ngaa dem jël. waaw ci côté Fass sa des parce que ñoom la ñu bëgg ñun mënuñu ko def. ñoom ñu bëgg. la ñu bëgg mooy bëri avant corps te ñun moomuñu date yi moomuñu tamit CNG. li ñu man mooy tëgg nañ la nga teel a bëre bëgg nañ laa wutal deuxième journée amuñu date moomuñu date yi te làmb ji kenn du ko tëgg ci alxames mbala àllarba ndax du làmb ji ñu seet keneen ko man defal ñu rek sa simple waaw. sëriñ nag sunu dooma bàyyi ma tax ñu jàpp ko. waaw soo ko simit bëggoon nañu retouram waaye ñu ngi ci leneen. ñu ngi ci leneen lu rëy. Babacar dimanche bëgg la ca des ginnaaw li fi ne du jeex ku ko mënta jeel bu fi bu fiy dëgëree fële nooy. bu fiy dëgëree mais fii ay waaw lu sëñ Ablaat wax. nee na loo ne cas mu dëgër ba ko fa xam ne sa wàll newu ci. waaye li nga moom day yomb boo xëccee mu dikk boo diree mu dikk. man nag li mais mbër mag yi VIP fi nekk seen combat yi tëye taxaw lu ci jëy production na. liggéey bu mën a am ci àdduna day am rupture gëm-gëm lay laaj yow mi am na liggéey liggéey day toll benn moment day dëgër ah, amul lu sax continuer bu dëgëree nag dañuy ànd ak yàlla toog muñ waaye dëgër dëgër ne ku ne di ko yuuxu di ko wax du làmb ja mbir mi ñëw ubbeeku ñuy wax ñëpp gisagoo fi kenn ko yor xaalis mën a dem ni mbër am moo xaale dëgër gi dañ koo dégg rek yu xuy dégg gisagoo promoteur boo xaale xëy na lawoon amatut sponsor amatut làmb ji dëgër na ay leader nekkatuñ fi Gaston Mbengue dem na euh, Aziz dem na euh, Luc Nicolaï ñu koy ñaanal yàlla mu dellu suñu biir Thialis Faye sa patron dem na benn année fi la ñëw daaw jëg suqale làmb ji donc problème yi foofu la nekk nañu war a wax ñi dem lu tax ñu dem wala ñu dem ñaani pour fexe Pape Thialis ñëw wala ñu ñaan Gaston bee nga fekkee ñëw wala ñu ñaani le retour de Aziz Ndiaye wala ñu ñaan ñeneen parce que làmb mu la ñeneen feebar dikk rek wala ñu ne fii ci suuf màgg buñ màggee d'ici deux ans trois ans làmb <laughs> soppeeku yàggul tuuti rek damay cof rek baay maa ngi lay ziar Babacar maa ngi lay fay ma am nga jàmm maa ngi sant alhamdulilah fi nga génne naa gis na de si àjjuma ji nii waaw di xam nga def affaire taalibe Cheikh rek <laughs> nooyal ko ba mu nooy <laughs> gis nga tey nga ñëw ànd ak euh, kuréelu promoteur bi nga xam ne nii gis nañu bàmba moo nekk ci bopp bi lan moo nekkoon tey seen daje ak ministre bi. waaw waxtaan nañu xam nag euh, euh, loo gisee dafa am ku ne ci bopp bi dafa am porte parole muy Abdoulahad ak Bamba comme ñoom mënuma ma jéggi seen kàddu di wax. en tout cas daal gisee nañu waxtaan nañu waxtaan bu solo tey yaakaar naa li ñu waxtaanee dinañ ko jëfe ñun ñëpp incha allah. maanaam tey bu ma la dégg parce dégg naa fi lu mel ni waxu maanaam waxtaan doon benn. mu mel ni moom dafa pare pour def jéegu bu mel noonu wala. waa man sax man loolu laay ñaan yàlla man en personne nañu juboo parce que muy waa côté bële ak waa côté bi ñëpp benn lañ ñu ñoo bokk lu ñuy ut muy bëgg làmb ji dem ci kanam bëgg làmb ji neex bëgg làmb ji baax muy Pa Abdou muy Laat di Bamba ay frère lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi amuñu benn problème ñun ñëpp daal la ñuy ñaan ñu nekk ci jàmm ak salaam. te wax nañ ko ministre bi mu dox ci jàmm ak salaam ñëpp doon benn rek àdduna amul solo. objectif bi daal mooy ngeen fexe ñëpp ànd bokk ndey bokk bàyyi. bokk na ci waxtaan bi mooy li ma la wax rek dafa am porte parole bëgguñu suñuy wax ji di di di jiwaloo waaw mais en tout cas daal bokk na ci waxtaan bi loolu ak leneen ak leneen quoi. mais am na fu may dégg benn genre woro wala benn xaw a tuuti mooy ci entourage su Balla Gaye dañ na ñi nañ jël booy ñang ñi ne ci école bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom Baye Ndiaye wala ñi nga xam ne ñoom la Balla jox boppam Aziz wala ñoom Baye ñoom bëgguñu Boy Niang loolu dégg nga ko wala lu am la wala amul. ñoo gën a bëgg Boy Niang bëri ak Balla Gaye. yéen ñii li ko bëggee noonu la ko ñun noonu lañ ko bëggee. amuñu benn woro. Gris Bordeaux da a lekk avance am wala dañuy dox seen combat. làmb ji daal nañ uti promoteur mbëri ñu ngi wax rek mais promoteur lañ déggul ba léegi. yow foo jëm ren yow tëggun nga fi daaw grand combat bu mag a mag. maa ngi xaar incha allah. uti promoteur daal moo gën ay mbër mbër am na fi promoteur moo fi amul. yow alburax du ñëw. man maa ngi ñëw incha allah maa ngi ci yoon bi saison mu ngi soo tijji damagul fenn. am na looy dox kon. ci kàttanu yàlla. Ah. waaw kontaan